baaxul ci góor jigéen di ko taal ngeen bokk benn hôtel bi yooyu itam ñu bàyyi ko ñu bëri dañuy gis yoo xam ne gars yi di war nañ leen koy fàttali ah di wane ay fuddan yoo xam ne yii jaru ko di wane ay kawar yoo xam ne yii wanu ko ci Medina ci Màkka ci Mina fa tazawwadu fa inna xayra zaadi at taqwa wattaquuni ya ulil baab am na noo xam ne soo ko melee góor du la xool du la fonto wala ñaanal ma ma am alaaji su ma ñibbee di wax waxi ngoro yow soo koy ñaan ñaanale ko si ñaan ko ci biir waaye di ko sant ay nit naan ñaanal leen ma ma su ma demee ñu takk maag su ma demee ma am jëkkëra ñu demee noonu yow yaa ngi ngoro ci biir aj gi am na dañ fay jógee rek ñëw ñu takk leen ñoo ñañ àndaloon ñu takkante loolu mooy la ba amuloon ci biir aj gi ak déggoo amuloon ci biir aj gi ñëw rek ñu takk wala rafasa wala fusuq wala jidaal yii dafa nekk yoo xam ne yu doy doy waar la euh, yu yu jarab di adresse la yu jar di waxtaan la ac arkaan boo ci wëcc rek war nga koo jàng euh, euh, sorry waajibaat yi loo ci wàcc rek war nga koo jàng waaye arkaan yi ihraam ihraam mooy lan démb abaaru ali nañu wax rek abaaru ali parce que ñun ñëpp foofu lañ dee armale ndax dañuy jóge Medina nekk loolu foofu moo nekkoon suñu plan waaye comme soppi nañ doxalee rek ñu jël wax waa Medina seen doxal dem ba abaar ali nga sangu waaye sa xel yaa ngi sangu pour xarma ne la woo na bés dana ñëw danañ la sang dangay nekk niw ñu sang la war nga bàyyi sa xel ci sangu moomu nga jógee ci sang ma sol ñaar ba ñett silipaas boo xam ne dara tegu ci kaw sa baaroom yeeg sa digg sa tànk yépp dafa so silipaas silipaas moom lu leer la nga odd lu jafe ci góor làmbaayu dala wóor na bës dana ñu solal la yaa ngi solu waaye bés dana ñëw dañ lay solal danañ la sang ba set ñu jox la ay yére nga solal man nga xelaat dee foofu nga jóg julli looy jullee fatiha qul yaa ayyuhal kaafiruuna fatiha qul wallaahu ahad bés dana jot danañ la jullee lii yëpp ak yaa ngi la koy firi nga war ko baax gaayit bi wax la ko laa dugg leen si duus yi ngeen sangu waaye na ngeen fàttali ko bés bi ñu leen di dugal si duus di leen sangi de pour war leen a yóbbu soo nga sangoo pare solu leen jigéen ñi ñoom seen normal dress bi rek la ñuy sol boo ñu amee bu giri nag baax na góor ñi moom nañ sol lu weex làmbaay soo paree julli bés biñ lay teg ci bunti jàkka ji di la julli war nga ko bàyyi sa xel nga pare rek sóobu nga nag ci xaram bi dugg nga ci bàmmeel bi di jëf labbayka allahuma labbayk labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wa nimata laka wal mulka la sharika laka labbayk yaa ko moom labbayka gaayit bi di leen ko wax wala ku leen di dimbale ci faan bi su ngeen wàccee yéen a ngi koy wax su ngeen dalee yéen a ngi koy wax su ngeen éeg yéen a ngi koy wax su ngeen di wàcc yéen a ko wax bu ngeen gëmmentoo yéen a ko wax su ngeen nelawee su ngeen eewoo yéen a koy wax nii ba ngay àgg màkk nga noppi dem ca dagg jub jubali kaaba ga soo demee rek def lu ñuy wax tawaaful xuduum boobu moom dañ ko sopp nekkut ruknu ndax rukk ruknu ba mooy tawaaful ifaada wër jox ko mooy ndax xol bi def ko juróom-ñaari yoon dem maqaama Ibrahim julli fa ak ñaan yi ci xew ak boo defee ñeneenti yoon ni ngay jàng yooyu yëpp danañ la ko rabbana atina yi ki ngay àndat dana ko wax ngeen di ko sikkar yéen mbooloo julli dem safa ak marwa lañ fay wax ñaan yaa yëpp danañ la ko nga dooree safa mujjee marwa pare su fekkee ne da ngay nga watu su la neexee itam nga bàyyi ndax bu fekkee ne da def tamattu بسو يوم الحج الأكبر نجمو نعم كوار جمو نوات كون أتيب جف يباح الأغوخ يباح موتاحنا يوننت ويحكا كل آه، ويحكا قل خيرا تغنم أو اسكت على سوء تسلم وإلا فعلم إنك ستندم ابن عباس ما وقت نينا وخل لباح نجمو نعم كوموري ba nga noppi ci lu ñaaw nga mucc so baye wax lu ñaaw di wax lu baax rek da nga danga da nga am lu baax waaye soo bàyyee di soo continuer di wax lu ñaaw te doo wax lu rafet réccu rek kon jikko yi rek moo am solo jikko yi ramadaan yi min jaamiati ramadaan lati taxarajta fiiha maanaam University of Ramadan bi nga génnee ci training boobu ci lël bu mag boobu nga jàng fa xam-xam yu bari yooyu ba xam-xam yi jeex nga war a dem màkka nag wala soo demul màkk sax fi nga toog nga def ko fi ba nit ñi xam ne kii de oram gi am na njëriñ waaye or ëllëg sa korite nga dugg ci yére yu gàtt yi col yu bon yi wax yu bon yi jëf yu bon yi commencé di seeti jigéen ñi ñu nekkul sa jabar ak yu demee noonu kon koor gi nga doon koor ana taqwa boo ci jëlee yal yàlla yokk sutura yal yàlla yokk jàmm yàlla moo amee xol yi yal yàlla defar suñu xol yi yàlla mooy ëlbati xol yi yal ko ëlbati jëmale ko ci lu baax ñi koy wax ak ñi koy déglu ñëpp yàlla moo contrôle seen xol yi te xol bi moom mooy omma nit ki kon yal na yàlla fexe ba suñ waxee rek mu nekk lu baax suñ jëfee mu nekk lu baax suñ ooree yàlla nangu ko kontaan ci ñun suñuy dokk ñu kontaan suñ dajeeg suñ borom kontaan comme ni ko yónnee na waxee li saami farxataani farxatun indal fitri wa fatratu indal liqaay rabbihi soo ooree ba ngoon sooy dog mel ni moo lakka subtu bi ka amantu da ngay kontaan waaye soo fa jógee bu la yàlla fayee nag ci ngay gën a kontaanaa nga or nag seeta ki yàlla dimbale teral la màggal la ormal la te yow rek nekkuloo fi mu dimbale la nga or ba mu jeex mu ne nangu naa mu yëkkati wërsëg jox la ne la demal màkka yokkati wér jox la mu ne demal dem makka jar na lu la même su fekkee ne sax sa wér melu noonu sax demal yàlla mun na laa dimbale suukar seeg jabet beeg high blood beeg ñëpp a ko am di dem màkk te yàlla dina noor si góor lañ docteur yi góor lañ danañ la dimbale yàlla dina yàlla dina leen jox xam-xam jox leen garab bañ bañ faj la gaayit si danañ la dimbale ci xam-xam léegi-léeg gaayit boo ñëwee fekk ay nit ñoo xam ñu ngi waxtaan loo xam ne du yàlla ñu ne leen he fi màkk la nag dañ leen waxtaan ci yàlla dal di indi topic waxtaan ci ak ñoom waaye yow it gaayit bi soo ñëwee fekk gaay yi waxtaan ci àddina nga bàyyi leen rek يكون لدينا سلجات يو سلجات هكذا فزاكا فينا زكاه فول مؤمنين دغوار دوار دي دي دي دي من دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي من دي دي نتي مينيت مودس وا فوكي مينيت اك benn woykati arab daf ne ku nim na man chita waktasib adaba yugnika mahmuduhu ani nasabi mu ne yow koo man di doon na nga wut xam-xamu yi na nga wut yar qualités yooyu na nga ko fexe nga am ko bul toog naan maay doomi diw di woy suma papa diw kooku def na lim def tilka ummatun qad xalat laha ma kasab wa lakum ma taksibun wala tusalun amma kanu yafalun aw xeet la ñoo fi nekkoon def nañ lañ def ñoom def nañ ko yàlla imma yaxkumu lahum aw alayhim yàlla mun na leen a àtt jéggal wala mu caw leen loolu kenn xam li fi bàyyi yi defoon maam yi def ko ñun waru waruñoo sonnal ñoom ñoo ko fi tëralu wala am na aada yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi ñu di ko doxal ñoom sax dañ ko fi fekk alaaji babu sàmba radiallahu taala anhu mos na ma wax mu ne ma maam maas de dafa waxoon na suma nawle yi nga xam ne saa yu ma taxawee ci jàkk ji gis leen ñi di ma noddal li liqaam ñiy julli di oorandoor di orendoor di wasifandoor ñu dem ba indi fi lu ñu wax géwél ak géer mu ne ma lii de jaaxal waaye amul ci téere de ndax ñii de inal abrara ñoom ñu baax lañ ñooy suñu nawle la waaye mu ne alaaji baabu mu ne mu ne ko waaye nag luy jeex la lu fiy deñ la te wax na dëgg alhamdulilah presque jaax kon nag maay doomi diw di maay diw moo ko gën nga fexe ba jàng ba fexe ba am xam-xam fexe ba dëgër fexe ba samp fexe ba di fi wax lu baax di fi def lu baax bu sa fan yi jeexee nga jeex ñeneen ñëw ku ne ibnu man cheta wak tasib adaba yox nii ma amul wax na si